léegi ah. euh, président engagé na des, des des modifications il a engagé le gouvernement à procéder à des modifications pour permettre à Khalifa Sall et Karim Wade de prendre part à cette élection mm-hmm. ba léegi l'autre opposant euh, Ousmane Sonko mm-hmm. euh, rien ne présage que dina mën a dem euh, ci élection boobu Souleymane Ndéné démb il a fait une sortie pour dire que euh, il voit mal que ñu créer les conditions pour que Khalifa Sall dem euh, Karim Wade dem et que euh, Sonko du du mën a dem il parle même de de de de grâce Sonko condamné nañu nañu ko dans l' affaire Mame Mbaye Niang nañu ko dans l' affaire euh, Sweet Beauty il Euh, on peut dire en résidence euh, surveillée euh, moomul boppam mënul dem ak ñëw ci ci ci coobareem et il n'est pas sûr de prendre part à cette élection équation boobu d'abord ban posture nga ci am mais il n'y a pas d'équation hmm. mais Ousmane Sonko n'a pas un problème politique comment ça il n'a pas non. problème politique Ousmane Sonko il a problème avec la justice Ousmane Sonko dafa am problème jigéen jigéen la amal problème jigéen bu ñëpp xam turam moom la amal problème yaa ma siif yaa ma sàkku sàkkuwum la yaa ma siif kiiwam la bon c'est un problème qu'il a avec la justice man justice bi bokkuma fa ah ni ma xamee ci politique bi xameewuma ko ci justice bi donc toog fii di jaawale politique yi justice bëgg wax ci loolu léegi kan moo mën a weddi Sénégal ni Ousmane Sonko parce que yaa ma introduit sax moo tax ma ciy wax les faits comme li ñuy jàng ci journalisme les faits sont sont têtus et cruels son le problème de Ousmane Sonko c'est quoi du problème mu détournement xaalisu état Ousmane Sonko du problème mu atteinte à la sécurité nationale xaw ma à la sûreté nationale Ousmane Sonko di ñu en quarantaine dëkk bi ñëpp toog seen kër mu toog xaaju guddi weddiwu ko déguisé wu mii ni njuuma dem ab bërëb bu mu warul bu mu war na fa dem waru fa dem c'est son problème man du ma ko juger parce que foofu ñu fi interdit d'entrée soo fa duggee aussi yoon du la ne comme danga nga dugg foo warul dugg dugg na fa am na lu fa xew loolu mu koy régler ki mu ko war régler est-ce que état porte-parole APR wala porte-parole benn wala kenn moo toog di accuser Ousmane Sonko mais sénégalaise comme yow comme man oo ko accuser ñu dem ci justice justice daan ko waaye léegi pourquoi nous ne devons pas être conséquents su fekkee benn nit bu mel ni ñu ni duudu Gueye mu bokk ci askanu mu bokk ci mbootaay kii nu mu tudd famille Macky ci politique nekk ci nguur gi def njombe ñu ni ko bëgg ko ni ko kirip affaire bi yéex ñu ni parce que ci nguur gi la bokk wala ñu ni ko kirip mu toog ab diir demande liberté provisoire ñu génnee ko ñu ni woy parce que ci nguur gi la nekk waaw mais keneen ki dafa def léegi def boobu mu am dafa am ay conséquences yoo xam ne dafa soqeekoo ci justice war a dal ci kawam léegi may mu na est-ce que honnêtement mën nañu wax waxu ni politique moo fi nekk honnêtement dañu bëgg wax ni tout la composition du tribunal ci ñuy atte c'est des gens de la paix nguur gee lañ jox instruction consort c'est-à-dire les les enquêteurs ñi def lépp est-ce que aujourd'hui dañu toog ni Ousmane Sonko li mu diñ ko jiiñ defu ko xam nga déggoo de boobu waxu kenn waxu la ne li mu ko jiiñ defu ko non non ay ñooñam jàpp nañu ne dañu ko tuumaal dañu ko dañoo politiser l'affaire et l'unique objectif c'était de l'empêcher d'aller à ces élections parce que non il allait remporter l'élection waaw dégg nga li ñuy wax loolu xam nga dama lay maamee diñu on a politisé l'affaire cela veut dire comme li ñuy wax ganaar ak nen ba fii dafa leer on a politisé l'affaire donc affaire bi gën a jiitu politique bi soo jàppee argument yooyu donc politique bi dafa judd ci affaire bi mais affaire bi am na donc affaire boobu lañ ko jugé mais lan moo ci yoonu Macky Sall lan moo si yoonu yaa xam bay lan moo si yoonu Maymuna mais Maymuna oui comparaison n'est pas raison Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui comprendre sénégalais la comme man sénégalais laa comme moom mais xam nga man yaa xam bay xam nga man xam naa sama bopp ah xam nga tey su ma taxawoon fii di kujjonteeg Sonko ah xam naa lu ma métti rek laa fay jëlee parce que nañ mu dóor dóor yoo xam ne ah dénku ga ji gis si dóor donc am na lu mu am man aw ko mais am na loo xam ne ñoo ci tolloo xam nga mooy lan juddu ci réew bi nekk citoyen nekk sénégalais mi noonu de Dieu mais pourquoi Ousmane Sonko war a def loo xam ne du ci politique li mu def du ci impôt et domaine teew ñu dem sulli ay mbootam yaa cinq ans dix ans impôt et domaine daf fa jaay suuf daf fa jaay li non affaire am laa ku jigéen di sénégalaise kooku argumente développé ay ay avocat am argumenté mais ba ci loolu ñu daan ko avant après boobu lan la def dafa tu dafa tuumaal mambay ñaa we est-ce que leer nañ dëpp mu dem ñu daan ko mais kooku su fekkee daan nañ la ba daan yooyu parce que xam nga su fekkoon Ousmane Sonko euh, dafa ñëw rek ñu changé code électoral bi dañu nekk ci procédure dañu changé code électoral ne ku ñu condamné ak lii ak lii ak lii da ngay am problème par rapport ay say droits civiques ñu mën a wax mais ci liñ ko daanee fi la ko fekk soo moytu sax euh, may mun a loi yooyu ñu ko daanee soo moytul moo la mag moo ma mag parce que xamatuma exactement loi yi kenn lañ kii mais par quelle vue de li pourquoi ñu bëgg ni non Ousmane Sonko affaire politique la déplacer affaire c'est un peu may mën ñu baal ma c'est insulter l'intelligence des Sénégalais comment on peut déplacer une affaire d'un lupanar à une question de politique et de république comment mais Ousmane Sonko li ñu ko toppee du dafa saaga Macky Sall non Ousmane Sonko liñ ko toppee diñ ñu ko diñ la ni couvre-feu am na bul génn nga génn Ousmane Sonko sénégalaise comme yow Maïmouna comme man moo ko topp ni ko da ma siif dang ma lii génne ay preuve génn indi ay témoins waaw mais loolu lan moo ci yoonu Macky Sall. mais mais mais xam nga Ousmane Sonko lan moo ci yoonu suñu politique bu bu diffamé Mame Mbaye Niang. il doit prendre ses responsabilités yoon dafa war a tegu ci kawam. Ah. Ousmane Sonko bu defee euh, délit. Mhm. Euh, euh, dans le cadre de l' affaire Sweet Beauty. Mhm. yoon dafa war a tegu ci kawam. Mhm. mais tamit il faut reconnaître que processus bi. Ouais. procédure bi bari na yu ci am yoo xam ne ëlëm na xelu nit ñi. lan par yu ci am xam nga xam comme par exemple euh, dans l' affaire Mame Mbaye juge bi joxe un verdict. Euh, daan ko euh, trois mois euh, deux cent millions procureur de la république def appel kan moo instruire procureur de la république c'est le parquet qui instruit le procureur de la république ñu def appel on maintient daan bi deux cent millions mais on corse la peine avec sursis à à à à à six mois ensuite dans la Sweet Beauté xam nga xam nga yooyu aussi dafa dafa doy waar et d'ailleurs les gens sont sortis pour dire que le juge là c'est un pastéfien voilà daan bi warul demee noonu mais c'est mais loolu warul xoolal c'est un pastéfien il est pastéfien waru ko metti parce que aussi pastef pastef non il n'est pas pastéfien non c'est même pas établi que c'est ça non bul werante loo xamul man ah. bul affirmer loo xamul mais dama ne pastef non dama ne que le juge non je ne dis pas que je soutiens mais dama ne la yow ne soutiens pas que duñ ko taxal parce que amoo benn argument pour ña ko wax nga teggi. waaw mais moi je vois un juge. lan mooy conviction politique am euh, pour man c'est pas le plus important mais man juge boobu man ah. ki ngay wax nii ki ngay wax nii. man ki ngay wax nii. dugg naa ci Facebook gis Facebook am am na li ma fa lire. bañ ma ko waxee diñ diñ ma ko wax yàgg na loolu. ma ne bon ki ma ko wax du ko jànni mën naa gëstu. lam ma wax bi ma demee gis naa ko mais ça c'est pas important. Euh, euh, qui, non bah, euh, j'arrive ensuite dans l'affaire Sweet Beauty. ñu ne dañ ko violer on nous entretient deux ans d'un viol avec violence avec fracas daf ko padd y a des vidéos daf ko def nii mm-hmm. euh, à la fin de la fin juge bi mu ne euh, viol amul mu mu ah, en pas de viol mu disqualifier les faits de viol mu mu mu mu mu disque mu nu mu tudd mu mu acquitté ko sur les faits de menace de mort et puis ñu ñu defal ko une condamnation euh, morale euh, corruption de la de la de jeunesse bàyyi leen di yokk ah. adjectif ak benn amul benn condamnation ah. morale corruption de la jeunesse créé wuñ ko pour Ousmane Sonko. non créé wuñu corruption de la jeunesse bi mu fi nekk defe naa kenn xalaatul sax Macky Sall dina nekk président de la République. mais xam nga. waaw mais xam nga lan ngeen xam nga lan viol dañuy non cas yi dama exemple dañ lay attité dafoo dara dafoo dara may mun a may mun dama lay jox benn exemple. xam nga lan la ñu war bàyyi fii senegal bon may mun a sàcc na ganaar ah yaa ngi may dégg ñu condamné ko xoolal yaa xam ah sàcc na ganaar ñu libéré ko. Maïmouna est-ce que y a des y a des verdicts dans tous les systèmes judiciaires de tous les pays muy États-Unis muy France nga dem coré du Sud dem Argentine dem Gambie dem ki est-ce que y a une uniformité c'est-à-dire les faits tels quels les condamnations qui suivent telles quelles mais Maïmouna gis nga fii nit rey nit ñu tëj ko disons beneen nit rey nit ñu tëj ko sept ans wala consort est-ce qu'on peut passer mais tous les cas de viol yu ñu médiatisé yu ñu fi gis euh, quand il y doute le doute euh, profite à, à au, prévenu euh, mais euh, bi justice bi segg na segg na segg na ba dem jàpp ko ci ay condamné ay ay ay ay corruption mais loolu ay doomu aadama ñoo jugé mais attends mais composition tribunal boobu xam nga ay doomu adama ñoo ko jugé ay nit ñoo ko jugé ay robots jugé wuñu Sonko mais mën na magistrat yi fa nekkoon xaw ma ñaata lañu cinq six ou sept président tribunal bi assesseurs yeeg euh, kii représenté parquet quatre ou cinq mais peut-être soo leen indi woon dindi woon dugal yeneen cinq ñu am benn mais mais jugement ci lan la élément de preuve ak conviction en intime conviction peut-être juróomi nit yooyu ko jugé soo leen remplacé woon ak juróomi nit ñu condamné ko lu gën tàng après nga indiwaat yeneen juróomi nit ñu apprécier élément de preuve yi seen intime conviction relaxé ko. après. mais xam nga euh, lan moo am solo. quelqu'un est jugé par contumace il est localisé c'est la gendarmerie qui l'a déposé chez lui. Mhm. Euh, après euh, ñu jékki-jékki. mais dafa am lu mu signifié. tamit mais contumace c'est que tu as disparu. c'est que on n'a aucune nouvelle sur l'endroit où tu te trouves c'est que tu as fui. waaw léegi ma laaj le gars n'a pas fui. léegi est-ce que jour ba ñuy jugé Ousmane Sonko. bàyyi ma yeggal jour bi ñu koy juge ah xam nga nekkul woon tribunal. mais mënoon nañ ko forcer mu comparer. non dama ne la waa léegi yow est-ce que mën nga attester ni jour jugement bi Ousmane ko nekk woon tribunal mais mi ngi woon këram. Ousmane Sonko mu ngi woon këram. yaa ko gis mu ngi woon këram. yaa ko gis sur eh, yaxam. waaw n'oublie pas euh, l'historique de faits. dañ ko jëlee Koungheul. Uh-huh. indi ko këram barricade këram. ñu ne ci ci ci kii bi nu mu tudd ci ordonnance de renvoi bi. Mhm. am na euh, ordonnance de prise de corps. Mhm. bu fekkoon ne mënoon nañ dem force Ousmane Sonko à mhm. comparaître. le on aurait pu la et l'amener au tribunal argumentaire bi ngay tenir. waaw ay hommes politiques di ko tenir ay suñu yeneen naataango di ko tenir. xam nga mooy la waaw ah, mais contumace bàyyi ma yeggale waaw bàyyi ma yeggale xoolal lënt lënt bopp nit ñi c'est-à-dire contumace soo demee sama yaay. yaayu keneen ak keneen maire yi paa yi xamuñu contimence même ñi jàng génération xam nga lan moo essentiel may mun Ousmane Sonko weddiwul ñu dugg na foofu weddiwu ko de weddi ñu dugg na foofu la mu waxoon nee na dafa dem ci médecin amoon méttitu lii ah ñu digal ko lële mu dem foofu. bàyyi ma yegale non xam nga man on respecte les droits du prévenu euh, en lui en lui permettant d'avoir un procès juste équitable. son procès n'est pas juste boo xam ne bu génnee. Ah, kenn du am lënt mais je dis que mais son Ousmane Sonko. Ah. Ousmane Sonko même euh, le problème c'est quoi woo nañ ko tribunal ñëwuma. donc dañuy war xaar ba mu ni maa ngi ñëw ñu doo ko juger la la loi yoon am na des méthodes pour le faire comparer waaw léegi yoon kaay le problème c'est pas yoon dem na di ko jëli gaare ay char de ak génne ay gaz ak pompe kër gaz futti ko yenu yóbbu mais yoon am na beneen pexe ñëwal taxaw ñu juger la nga bañ juger nañ la mais verdict bi léegi verdict bi. alors non verdict bi dañuy bëgg ni verdict bi valable. non man du ma du ah, ma yegg foofu. ah donc je je relève des faits. gis pour man. Ah. dans l' affaire dans l' affaire Ousmane Sonko xoolal. y' a plus débat lu dul justice bi lu mu tranché nit ñi ni d' accord. mais yaa xam mais yaa xam euh, jugé nañ ko. il est chez lui. Ouais. il est condamné à deux ans tu sais il y a tellement d'incongruité dans cette affaire là il est chez lui dañu doon wax ne la décision doit être notifiée ouais, non, elle est notifiée elle est publiée ouais. il est chez lui il est barricadé il ne jouit pas euh, de toutes ses libertés de mouvement euh, amul benn ordonnance légale bu bu bu bu justifier loolu c'est-à-dire tamit dans un état de droit le premier qui doit respecter l'état de droit c'est l'état. Maïmouna yi ngay wax nii yow la engagé. non engagé wu ce sont des constats ah, c'est du factuel aussi. la gis nga. c'est-à-dire ce dossier là il est inédit dans l'histoire politico-judiciaire du Sénégal. oui c'est inédit. yow euh, une personne condamnée qui dort chez lui mais Maïmouna. une une demeure barricadée sans ordonnance légale. yow li ngay wax li ngay wax ni c'est inédit yow. kon moo peut-être euh, fekkee woo ko peut-être boobu gënoon tout tànk Ablaye Wade fii su élection amaan balaa 6 heures balaa mooy jot balaa ñuy compter vote dañ koy jàpp ba pare yóbbu. mais waroon dépassé nañ loolu Sénégal dépassé waxuma ñu dellu si jamono jooju mais soo leen ne musu fi am. Sonko absolument rien ci sama xam-xam lañ ko def loo xam ni dafa doon lu extraordinaire. ni ñu bari kàddu yi këram ji. te amul benn ordonnance légale. Euh, loolu leer na amul ordonnance. y rien. wóor la non bu amoon ngeen génne ko. non wóor y a rien. ah da nga bëgg a wax ñun lu am ñu génne. ko ci ma ne ma ne. bu amoon une ordonnance du juge. bu décerner bu bu bu bu décider de mettre son Sonko. en résidence surveillée di ngeen ko mën naa la poser benn question. et d' ailleurs am ñoom am na woon ak ñoom Ismaïla ils n' ont pas pu benn question. est ce que Ousmane Sonko citoyen sénégalais contribuable et tout doté de tous ses moyens xel xalaat donc yoon la ñu yóbbu la ci yoon ni la ñëw wi nga ne maa ba ñëw loolu jarul débat. mais fu ñu débattre ni attends dafa waroon wuyu ji mais attends dama ne la xawuma man te intéressé wu ma sax ba ma koy vérifier ndegam ba léegi Ousmane Sonko ay takk der dañu toog buntu këram ñu ko bul génn mais saa waay koo xam ne en général fu mu génne dëkk bi euh, dem tooñ ay jàmbur ah lakk alalu jàmburoo consort mais kooku suñ ko di woon sax soit doo génn wala soo génn dañ lay topp di la xool mais ñu ko def tooñul yow may mun a mais doo génn gaa yi ni lu doo génn sa buntu kër taaloo fi lenn. waaw mais waaw mais xam nga. xam nga li ñuy wax nii xam nga xam nga man ce ma me choque. ma qui me choque on ne parle pas de dizaines de morts on nous parle de quelqu'un boo xam dañ ko assigné këram ni ko nu mu tuddati euh, ni ko ni ko bul génn parce que soo génnee def ay njombe bi yow bi ngay wax ni bi ñu ko toppee fa mu jógee ba yi di ko jël. ci fan lañ ko xam nga yoru woon nag otoom normal chauffeuram normal garde corps normal ci ay xaw ma kalandoo la duggoon ak yi kenn xamul c'est-à-dire ça c'est pas otoom la waaw non waaye yow kay xanaa moom dafa yor société de loolu otoom la non mais xam nga lu ma d'accord moi je trouve choquant aujourd'hui que on appesantiruñu ci góor jigéen da ko accuser ni ko danga ma sàkku mu dem ci tribunal boo xam ni ay sénégalais ni ñoom ñoo fa nekk góor ak jigéen am lijaasa daraja ak légitimité fi ñu toog ñu war fa toog avant Ousmane Sonko ñu atte des dizaines pour ne pas des centaines de citoyens sénégalais condamné leen Ousmane Sonko ñëw topp ci rang bi ñëw foofu ñëw ñu politiguñu xam nga déggoo fii ñuy jiiñ ñi ña waroon jige Ousmane Sonko dafa am benn APR wala mbokkam APR la au contraire da nga doon dégg ñuy wax eh juste ñu jël ab euh, fële la bokk Pastef donc ñooñu c'était des Sénégalais dans tous les sens du terme ñoom seen intime conviction et sur la base des éléments de preuve condamné ko mais qu'est-ce à dire sur mais, ça mais mais yaa xam c'est une décision de justice ouais. rendue les décisions de justice sont rendues au nom du peuple mais xam nga dafa am lu am c'est-à-dire mm -hmm. Ousmane l'état du Sénégal pour garantir l'état de droit dafa war a respecter ak ak yelleefam waaye itam daf ko war a imposer aussi la rigueur de la de la loi. ban ak ak yelleef Ousmane Sonko la. la la rigueur de la loi fi mosuma fi gis Sénégalais bu ñu jugé par contumace mu tëdd këram ñu xam fi mu nekk. ensuite résidence surveillée c'est je pense que c'est même une première ma gis un euh, un homme public ñu def ko résidence surveillée. dafa war a am. dafa am décision résidence surveillée dafa dafa am décision ah, xaaral rek xaaral rek dafa am placement. sur xaaral rek dafa am bu ko war a sous-tendre ensuite bu fekkee ne dans les événements de du premier du 2 et du 3 juin l'état du Sénégal dafa jàpp ne Ousmane Sonko am na ci responsabilité. war na ko teg ci yoon. waaye nag mënoo jël nit nga tënk ko waxoo sénégalais yi lan la def euh, moom xamul xamul ndax euh, dafa war a jóg wala dafa war a toog. Euh, restreindre ses libertés c'est un homme qui dirige un parti politique il ne peut pas mënul dem mënul ñëw mais mun a xam li li ngeen doon ne xam nga lan la loolu moo xam nga lan la amul sens si man j'aurais compris que vous que vous par la fait de dire non avant Ousmane Sonko ay moroom ak moroomam la ñu fi tëj bi ñu leen di atte ñu bañ ñëw ñu tëj leen dañ leen dem jeex ba gis leen jàpp leen donc Ousmane Sonko bi dañ ko war a jeex dem jàpp ko parce que sénégalais la comme les autres.